asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ah, maa ngi nuyu bu baax sum nuyu ak sum siyaare di teg ci loxol sunu kilifa yi toog Cheikh Mahamadou Basir muy sunu kilifa sunu njaatige di sunu joriñ ci liggéey bii maagale na ko ci Cheikh Mahamadou Muntaxa mi borom liggéey bi di Cheikhul Xadim di borom liggéey bi ñu ñaan mu yàgg ko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 te liggéey sëriñ Tuubaa yi nag benn da ci ëpput taxawal ko bi bis bi sant suñu borom nañ ko santre ku fi ma see nekkal sëriñ ko ne ñu gis bis nu mu ko yitteele ñu gis sëriñ Muntaxa mi itam nekkagul sëriñ Tuubaa di ay jëwriñ ci ay kilifaam nu ci daan taxawee di ko ànd ak ñu yor liggéey bi ba mu yor liggéey bi sëriñ Tuubaa di jëwriñ ju mag ji daf see Cheikh Basir mii muy jëwriñam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 ñëpp di ko fa soxla itam day gën di baax dem rek ndax ginnaaw day day yàkkali fi de am fa kon niñ koy waajal it du am fa muy yem daa war a dox di dem kon nag Serigne Bassirou mi nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi te ñu xam ne yitteem yëpp ak pastéefam bépp mooy liggéey bi dox ñi ni mu ko dénkaanee itam ak commission yi nga xam ne moom lañ ciy def commission yi bu ci nekk mu di mooy commission ba mu yor ba ñu mu dox doxeen wu ràññiku ba lépp ànd baax ci kaw ni ko sëñ Ousmane di coordonné solo nag mooy yëg-yëg ak pas bi nga xam ne moom la taali bi yëpp war a am rawatina nag ñun bi yi am tafeex yi taxaw bis bi taxaw liggéey bi waaye ab taali bi sëñ Tuubaa fa a nekk bis bi ñëwee dafa am yëg-yëg bu mu fay yëg ci boppam ñu néew ci réew mi sax fañ nekk ñu ngi fay day ci kër sëñ Tuubaa yi di màggal bis mi itam ku ci mënta ñëw tuwaay yaa ngi fa nekk magal kon ñi am tawfeex dëgg am tawfeex ñu dina taxawloo bis bi kon taxaw gi war nañ cee góorgóorlu bu baax a ba lépp loo xam ne mooy tax ñu amee ko niñ ko bëggee ba ba defee ko ni mu bis bi bi loolu bis bi am ko waaye daal xam ne bisu sëñ Tuubaa bi moom dara dara dara dañu tulluwut ci mooy ab murit ab murit nag li yitteem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 kon nag foofu laay tënk kàddu yi di sant ñëpp di gërëm ñëpp wa rahmatullahi wa barakaatu. wa rahmatullahi ci ndigalu Serigne Bass ci turu comité d'organisation grand magal de Touba ñu ngi amaat mbégte bu baax ci jataay bi ñu amal ngir. fesel liggéey bi jëm ci màggal gi ci ndigalul sëriñ Muntaxa ñu di ko ñaanal yàlla sunu borom mu eggali ay mébétan ak yéeneem di ñaanale sëriñ Bass mi nga xam ne <clears throat> mooy jaruñu liggéey bi yàlla doole ko ay tawfeex ci doole ay ndamam tam yàgg jiite ci kanamu yoon wi